ci li nga xam ne nii moom moo di bavure yi nga xam ne lim nga ko léegi euh, ci manifestation yu am keroog mais ñu gis euh, koo xamante ne nii dafa yor arme génn di dal ci kaw euh, ña nga xam ne nii ñoom ñoo doon manifester muy Mamadou Lamine euh, Massaly defe naa ñu bëri euh, gis nañu vidéo yi nga xamante ne nii moom gis nañu ko moom ngeen gis noonu ci écran bi mu yor ab arme di mel ni kuy attaquer ñi nga xam ne nii ñoom ñoo nekkoon di manifester et puis c'est c'est la première fois gis nañu ko ba nga xamee ni nii ay manifestation amoon na fi ci weer ñu jóge mu génn ba daanaka jàppoon koo xamante ne par la suite sax dañu ko mujjee libérer ndax deful daf ko jàpp euh, jox ko policiers yi ba am yu ca xew mu doon tuumaal kooku ne dafa bokkoon ci manifestation yi euh, doxalin bu mel nii boo ko gisee ban ban gis-gis nga ci am. réewande bu metti rek xam nga man damaa yàgg a wax fii ba noppi ñi ñuy tàggat. maanaam mhm. ñi nga xam ne dañuy dem wuti permis port ma tàggat bi ci war suñ leen ko tàggatoon. Mhm. lu def yi fu dof yi. Mhm. yow amoo benn menace. ku mel ni Barthélemy Diaz mhm. ay nit ñëw sa maire yi mais mhm. amoo benn menace bu toll digg bëccëgu na nar a kàmm ngay tiire à bout portant ay agresseur lañ wala ay nangam ak nangam lañ mhm. menace bi tollul noonu parce que ay nit a ngi woon sa ginnaaw naan la allez-y loolu noonu yëfi dof la kii taximaan boobu kii woon ba ray waaja yoofit réew danga ko jàpp masala mii réew danga ko jàpp kii permis port d'arme kii dañ ko war a récupérer waat te waratu koo am ilaa yow mi diin ay nit di manifester nga génn dem di taxaw mais bon ñooña la rek yow buñ jékki-jékki woon mbooloo mi dagg mën nga cee wàcce kenn mais boo ci reyoon nit buñ paree dañ lay rey kon ñu def euh, kii nekkoon fële nu mu tuddati euh, caaro yi keroog. lu ca am. Mm-hmm. yow génne ay arme ay nit yu taal ngay génne mel ni dof. Mm-hmm. loolu fu mu am. réew dongale non problème bi nag mooy dafa mel dañoo gis seenu toroxtaan yi xam nga bu fekkee ne yow da yaakaaroo ci lu may toog muy dox tëdd muy naaw <laughs> bu doon xam-xam rek doo bokk mhm. waaw problème bi lii mooy deel ma torox gi maanaam tey Macky Sall mhm. genre nit yu mel nii la entretenir ñu xamadi réew mhm. sax lu ñu war a def ak lu ñu warta def ba ñu yegg fii kon bu jàppee ne dañoo nar a perte nguur gi mais da leen jaral lu nekk lii la rek mu ngi mel ni nga nar perte nguur di woo armée bi wala nga nar a perte mbuur di def ay milice ak mm-hmm. yooyu. Mm-hmm. lii mooy deel ma torox yi. ñii lii rek lañ am ku ne li nga am ngay joxe. bu fekkoon ay borom bopp ñoom ñoo fa nekk tey. Mm-hmm. kii daa waroon a bokk ci ñaan ah mag. fi situation réew mi toll de nangam ak nangam. mais xoolal ñii ñooy yokk xar mi kawar. lu waa ji ñàkk. li yokk ko xañ. d'accord gënoon a bon PDS gën caa yées moom la Macky Sall dajale. moo tax muy jiw. alors euh, Demba. Mhm. Euh, gis nañu euh, vidéo bi balaa ñuy dem ci beneen question bi naka ba nga ban ressenti ngay am tey boo gisee actes yu mel ni ne di ko posé et puis comme ça quoi ça passe après amul benn problème. am nga déjà euh, su doon dañ ko jaaral ci yoon. Mhm. ñaari moo koy dal ñaar yi ma lay wax nii. Mhm. dañ koy jàpp. ki ko jàpp procureur xool ne ndax. dafay tëdd kaso. Mm-hmm. wala dañ koy atte parce que flagrant délit la. Mm-hmm. mais am na infraction. infraction bi mooy euh, ministère de l' intérieur moo bind benn communiqué. Mm-hmm. bi wax ne diggante le cinq janvier. ba le quatorze avril. képp ku amoon sa autorisation de port d' arme. même bu doon dagan na nga yor ko. tere nañ la période bi nga yor ko. donc du question dagan na wala daganul mhm. légal ou pas même si tu as une autorisation de port d'arme un mhm. permis de port d'arme mhm. période bii soo la détention elle est illégale il est illégal kon kan moo war a yor port d'arme jam arme jamono ji mooy takk der yi donc y ma samba du ma dem ba ku ko weer ku ne yoon dafa war a dal sa kaw wala port d'arme port mën nga ko détenir détenir sa kër sax non xam nga buñ la waxee ne port boobu mooy détention bi par exemple duñ leen wax ne période bi na ngeen na ñu delloo seen arme mm-hmm. mais dañ ne ne bul ko génnee ah, détenir ko mooy port d'arme nga génnee ko di doxantu bay war a naan da ngay viser mm-hmm. supposons que sax nekkuñ ci période bii nii mm-hmm. mais yow bu dee yow ñëw ñu teg débat bi est-ce que yow tu es habilité à rétablir l'ordre public non l'ordre public kenn moo ko mun def. kenn je dis bien kenn moo ko mun def moo ko war a def. Mhm. kenn mooy li ñu tuddee les force de défence et de sécurité. te ñooy ñaar kese la. Mhm. police et gendarmerie. armée sax du ko def. Mhm. donc ci Sénégal ñaari catégorie ñoo koy def. police gendarme. képp ku ko def nekkoo policier doo gendarme xaw ma nu ñu lay tuddee. nerf yi xaw ma man xaw ma nu ñu koy tuddee. boo defee loolu. maanaam bandi buy wër la. mais affaire benn la génnewul arme sax. mais lii ko dal. Mhm. te parce que dafa doon dafa dem ba jaawale mission am en tant que garde rapproché du paysan. Ah, ba def di def lu police war a def. Mhm. ñu raxu ko et kooku ah bokkoon na ñu gën a jege Macron. Mhm. tey sori na ko parce que duñ foog. donc Massaly jamono ji li ko waroon dal mooy jàpp ko teg ko loxo atte ko xam nga dañ koy atte wala nga def ko sursis yaa xam loo koy def. et par retirer arme bi. retirer armes parce qu'il a violé ce qu'on appelle le décret du ministre de l'intérieur bi interdire le port d'armes mhm. waxuma la nag da ngay naan da ngay da nga ko nar a user mhm. parce qu'il était sur le point de d'user mhm. son arme et de tirer tirer kan ngay tirer kooku tirer lan moo la jox droit nga tirer même bu ñu nekk noonu ci période boobu amoon droit tirer même le policier pour rétablir l'ordre on waxuñ ko nga tirer police dañ ne na yow da ngay fexe ba oh, lenn moo la intéressé pour bu ordre public bañ a am. Mhm. mais pour nga def ko waxuñ la nga dóor nit bal. d'accord dañ ne am na ay munitions. Mhm. yoo xamante ni yii boo ko utilisé. Mhm. ki nga ki ngay ki ngay dàq pour moo ja def loolu doo ko rey. mais du mën a résister parce que dafa am effet. yu yu xamante ni mënu ko respirer mënu ko supporter donc dafay arrière. donc yow en tant que agent da ngay fexe ba donc ordre boobu noonu puisque yow. Euh, préfet autorité administrative moo la jox pouvoir yooyu. nga mm. mën ko restaurer. mais dans ce cas Massaly n'est pas un policier il n'est pas un gendarme. dès l'instant ñu gis ko mu yore arme pour procureur bu ko leeree ne gaayen bii it il est mm-hmm. moom la dafa waroon yónni même police boobu. Mm-hmm. wala gendarme ne ko dem nañ jëlal ma waajee. et pour man le problème du fait bi Massaly def mais impunité bi en fait mooy poser problème. mais mais mais c'est c'est c'est sànq naa nee d'impunité et d'indifférence mm-hmm. d'indifférence mooy xam nga ne ñëpp xam na ne am na lu xew Sénégal mm-hmm. ñëpp sëgg ne garaawul loolu amatul indi indifférence mooy xam nga ni waa ji mm-hmm. médecin bi moo def lu ñu tuddee autopsie nee na kii bal moo laal crâne bi bu dee kii nee la fii lañ ko dóor bal mu dee yow mës gis bal buy naaw comme ça te tiirewuñ ko toute bal buy jóge ci fetal am na ko ko tiire mu tey ko bañ ko tey am na ko ko tiire kooku beneen débat la man dama fekkee ay ndaw yu dee fële mu tudd sax euh, Doudou Dieng la tudd mhm. ce jeune c'est un jeune mhm. très jeune et ce jour dama am lu mu métti mhm. parce que bi may wàcc di dem ci dëj bi ay quinze heures ñu koy jullee après tisbaar ñu dem këram way juróom Mm-hmm. am na doom boo xamante ni amul sa 6 mois. Mm-hmm. kon xam kooku du ma a gis papam ma marié ñu am doom bu am 6 mois kooku da doon manifester 19 heures mu dem ci yaay ji ne parce que dafa am xar mu jox ko mu lekk ne yaay maa ngi delluwaat naa ngi dem ñu toog même pas 20 diggante bu matu 30 minutes benn médecin moo ko woo ne ko ndax yaay yaay Doudou Dieng mu nekk effectivement si moi. mu ne ko sa doom day dañ ko fi indi mais il waxul dafa dee de mais xamoon dafa dee puisque moo dee kenn du mhm. ñu ne ko dafa am blessure ci tànk mhm. mu koppiwaat mu wootewaat insisté est-ce que vous yow yaay yaay Doudou Diène mu ne ko man la maire bi ne ko wax ma lan mooy dëgg rek excuse mu ne ko léegi ñëw leen hôpital Idrissa Pouye ñu fekk ko fa mhm. ñu ne sa doom dee na comme ça autopsie leeral ne dañ koo dóor bal ci dënn waaw léegi kooku médecin bi wax loolu. médecin c'est un agent assermenté moo ko wax. mu indi ay papier mu jox la ko yow waajur bi. ñu ne la dee na am certificat de décès demal suul ko waa léegi est-ce que loolu noonu la war a demee. impunité boobu dañ ko war a bàyyi Sénégal frustration boobu politiciens yi ñoom il faut ñu xam moomuñu Sénégal mais pare moomuñu Sénégal. te lu ñuy nar a def nii c'est comme si pour dire que ñoom ñoo gën a tuuti fii. waaye lu ñuy wax moo fi am. en réalité politicien bi. du lu mu war a am moo war a am xam la mu war a am. Mhm. les principes de de la démocratie quoi le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. askan boo doonee dara askan moo la ko def. Mhm. askan bi lu mu bëgg ngay def du yow li nga bëgg. donc fii lu ñuy def mooy nañu def li askan bi bëgg. Mhm. nañu jaamu soxlay askanu Sénégal. d'accord donc ñii di dee je bien. loolu dañ ko war a leeral donc ñi nga xam ne dañuy yore ay arme jamono jii mhm. même ci doon yoon daf ma ne cuun am nga autorisation nga yore arme di doxantu mhm. pour sa sécurité yoon daf ma ko teree jamono ji pourquoi masali mu koy def ci jamono boo xam ne dañ ko tere d' accord ba tey ci bavure policière yooyu nga xam ne nii euh, yaa ngi koy wax gis nañu euh, déjà ci fan yi ñu jóge ak euh, mouvement d'humeur yi jot a am ñi nga xam ne jot nañ ci ñàkk seen bakkan ak yi nga xam ne exemple yi nga xam ne saa mi ngi ko doon joxe léegi ñoo xamante ne gis nañu jigéen bu ñu dóor indi kape boo xam ne ñu ngi doon dal ci kawam ak yeneen ak yeneen ak yeneen ban cest à ban ressenti yi ngay am tey booy gis ñoo xamante ne nii ay force de l'ordre lañ ñu ñuy def genre pratique yu mel Euh, da man daf daf may métti et quand euh, dafa am benn histoire États-Unis donc euh, l'afro-américain